alors li ñu gis ne da dafay manquement la nekk continuité la war a nekk warul doon are comme ni ñuy wax li Modou Lo di def li ñuy wax ne mbër du préparé wu dafay pare constance continuité athlète boo xamante ne tout le temps dafay am ay muscles saillants day am ay muscles yoo xam ne day am day endurant day am ay muscles yoo xamante ne à chaque fois boo ko yeewee rek mu jox la li mu la laaj cest di dire tendance bi ñu am mooy mbëri commencé nañ ci yeewu léegi bàyyiwuñu ba combat am ñu soog a entraîner boo xoolee léegi ñu ngi nekk ci constance boobu di entraîner di préparer mais boo xoolee Tapha Tine c'est un muscle long la yore muscle bu gudd la pour feesal ko dafay metti dina entraîner sax nga def ne entraîner mais li muy laaj déséquilibre booy xool corporel bi mu am le haut du corps a été un peu dominant par rapport ak bas du corps bi parce que centre de gravité bi nga xam ne c'est de la ceinture abdominale jugee ci dem ci épaule scapula bi da gis ni c'est tout saillant pare na mais li ko dalee à partir de la ceinture abdominale jëm ci moelle yi ci suuf ndigg bi ba ci suuf tu vois que ni war na ko gën a mën a remplir moo tax boo xoolee bi ko ëmma seen dóoreeku force bi mu am ak doole bi mu am moo ko permettre bi mu defee trois appuis mu xaw a résister tu sais que le KO woon kawo na sax kawo cinq secondes la kawo bu mën a knock out c'est le knock out tu n'es pas là ci es hors de mais dafa ressaisir parce que le haut a emporté le poids ak force bi permettre ko mu mën a ñëwaat peut-être am mënoon na am ay arguments yu mu enchaîner mais est-ce que yaa ngi koy wax gis nañ ko mu xaw a essoufflé tuuti mais quand tu fais de la musculation musculation bu bari su amul régénération su amul motricité ak mobilité quand tu fais des épreuves physiques dafay fayu. parce que muscul pour le cas de Eumeu Sène. waaw c'est valable pour tous les deux.